Contactez-nous ci numéro c'est disponible pour tu commander. inshallah euh joxel sa tour, ñu la su nga jël ko arrêt Serigne Bara wala wa livraison à domicile fo mëna ci Sénégal ci territoire national dañ la ci mëna jox ba nga mëna jot ci say traitement inshallah jëf ñoo ngi leen di cabinet univers bio ci yeneen merci allo anu, salaamaaleykum waaw Serigne Lamine Bara Fall waaw man la Ibra man la Ibra laay dëkk Cambérène eh. 1 waaw traitement Mouride Alam bi kontaan naa ci de kontaan naa ci bu baax a baax a baax parce que sonoon sonoon naa trop trop trop sama biir bi da doon jooy mënatumaa dem ci xewi yi mënatumaa dem si ngénte yi man wax dëgg yàlla daal sëñ bi kontaan naa bu baax a baax Alam bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir bi da jooy ak lépp léegi lépp macha allah sëñ bi maa ngi lay sant nag bu baax baax di la gërëm di ñaan yàlla mu yàggal taxawaay bu baax a baax a baax Alam bi daal sëñ bi solo na solo na ma lool lool lool lool waa ji mënatuma na dem fenn fenn fenn kër gi sax mënuma ko woon a génn wax dëgg yàlla mais instant daal sant naa bu baax a baax sama biir bi da daan jooy itam sama biir bi da daan bi mënu maa mënu maa na dem feen wax dëgg sant naa bu baax de jërëjëf mënu maa wax sax. mauvaise haleine kon ci loolu la ñu nar a am yéene pour waxtaan yéen ndax pour ñenn ñi dañuy am yenn jafe-jafe ci seen biir maanaam dañuy am ulcère wala estomac wala ay reflux gastrique maanaam dañuy sentir ay xeetu gémmiñ bu ñu wax ak ay nit ñi ñu dëmmooyu di wane ginnaaw di tëfli wala ñuy sentir ñenn ñi dañuy déranger wu dañuy déranger ay nit ba ñu ci bari ci ñoom dañuy sax takk masque ndax bañ a déranger ay nit surtout weeru koor gi loolu nag wax dëgg yàlla nekk na lu sonal askan bi ñu bëree ci askan bi dañ koy sentir dañ fay def traitement bi nga xam jëm ci mauvaise haleine généralement koy raxas biir bi raxas ko bu baax ba mu set fépp ci seen yaram ci estomac may la ay garab yi ko faj ci put bi ndax am na ñoo xam te ne dañoo am amygdale wala angine loolu itam ba tey day bokkaale ci gamme de traitement bi ñu lay jox day fajaale daal faj angine ak fu mauvaise haleine bi mën a jóge am na ñoo xam te nag seen signe bi dafa am problème wala ñu am problème bucco-dentaire wala seen signe yi wala bëñ yi day am ay gàllankoor gamme bii ñu leen di jox am na lu ñuy broso am na lu ñuy naan am na itam ay ñaan yi nga xamante ne dafa jëm ba ci wàllu ngelaw seytaane ñenn ñi ci seen signe la nekk ci signe bi bu ñu broso nee naa leen ndox mu xonq lay génne lu mel ne deret wala ndox mu jaune bi xamante ne day dem ba di am xet loolu yëpp dañ leen koy fajaaleel généralement ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmande bi nga xam ni moom macha allah gamme complet la buy faj lépp lu jëm ci wàllu euh, mauvaise haleine comme ni ma ko junjee sànq wàllu ngelaw ak ngelawu seytaane loolu affaire rab la mun nañ leen ci mayaale ay ñaan dañ leen di jox ay garab may leen ay ñaan yi nga xamante ni lépp lu jëm ci wàllu rab ak ngelaw seytaane dañ leen koy fajaaleel ci biir traitement am na ci ñi nga xam ne itam affaire liggéey la dañ leen liggéey dëddale leen ak nit tàggale la ak doomu adama yi nga xamanteni ñoo nekkoon autour de vous yaa ngi koy amee fii ci Dakar Géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Lamine Bara Fall numéro téléphone bii di Dakar 77 169 45 45 wala nga jël 77 646 41 21 am na livraison à domicile gratuite foo mën a nekk fii ci Dakar incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu Serigne Touba. salaamaaleykum sëñ bi li ngeen ne mbaa yéen ngi si jàmm bu baax maa nuyu di leen ziar lu bëree bëri leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen dama déggoon sa pilis la si télé bi si laa jële woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal daf ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de li ma doon dund ay at mauvaise haleine yi mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni nit sax balaa may egsi si man laa koy nuyu wallahi munuma sama yitte yépp laa daggoon wallahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd ci ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallahi ngeer sax lu ne luñ ne baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine yi fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex mu mel ne daa gën yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit ñi normal fi mu toll gëmewuma ko sax nag wallaay gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci man moom toog di ko xalaat ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla leen yàlla fay gën a wéral cëriñ kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañu leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génnee ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun waa univers bi yow ku soxla sunu numéro nag dangay def 77 160 93 93 asalaamaaleykum Serigne Bara Fall man la a Diallo euh, dëkk Guinée Conakry euh, wallahi sa garab ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant yàlla mauvaise haleine bi Euh, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mboq bu nekk Sénégal foofu euh, moo ma jox ko sa numéro ba nga koy ba ma ko yóbbante ba léegi euh, instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la bu baax a baax baax baax parce que mënu ma nekk ci nit ñi ay maxi rek laa doon sol aussi tamit sama biir da doon métti yooyu noonu. mais sant naa la daal gërëm naa la maa ngi lay jaare xam naa ni sama mbokk Guinée yi nekk fii nii si Guinée dinaa lay yabal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa bu baax a baax salaamaaleykum. asalaamaaleykum sëñ Baara na nga def maa yaa ngi si jàmm maa ngi lay ziar bu wér wér man nga fi seetaloon jamono yee ca ginnaaw ne ma affaire ngelaw rab moo ma duggoon ak ay liggéeyu yu bon ma defoon ak yooyu ak affaire saytaane. rab nekkon luma yakal ak yooyu ci seet gi loolu nga ma waxon ba jeexaloon nga ma ay garab ma di la xamal ne garab bi ni nga ko waxe won jëfandikoo nak wax deug gis na ci njeriñ parce que lima meun ni munu mako won tanena tane naa sant bu wer wer wer wer ndax dama daan dem bureau sax duma meuna liggey damay lal ba sax tëdd ndax sama yaram bi daan 10 sama dënn bi 10 ba munu ma noy wax deug tanena bu baakha baakha baax sante yalla di la sante yow mi nga xam ne ci jappale jere jef jere jef seigne bar jere jef yalla la yalla fay jere jef lan moy difference entre rap jinne ak ngelaw seytaane nitu guddi rab jinne ak seytaane ben la jinne mo ñëw ci alxuraan rab wolof mo koy wax seytaane arab moy wax seytaane ku wax rab amul wala ku wax jinne amul rek xeyna da nga jàngul alxuraan ndax yàlla neena nit ak jinne la boole bind sak wa maa xalaqtul wal ins illa bi yabudun am ci xetu jinne bi nga xamante itim nak bu bëggee dugg ci nit day jël jëmmi nit boobooy jinne bi nga xamante nak moy jinne seytaane moy jinne nak bi sonal nit ñi ñu koy wax faru rab jinne bëggul ko am diine xale jigéen yi am 17 ans 18 ans nekk ci buntu àddina di bëgg a dugg ci sëy en général jinne yi ñooñu dañ leen di jukk ndax ñoom it ñoo koy def ndax jinne bu ñu gisee jigéen bi nga xamante ni tey sol nga greffage poudre nga maquillage nga make-up nga yaa ngi sol lu yiwadi say say cër ngi feeñ sa dënn ngi feeñ bu ñu xoolee sa suuf dara tëju ko yaa ngi sol baa sol body koku jinne bu la seeni ngay dem daf lay topp ndax jinne la yalla bind ci soppe nit ki bo commencé sentir ni yow kat sa alal yaa ngi commencé yak am ay yak yak alal xaalis bo am rek day sey lo am day yak di am ay jafe-jafe ak nit ñi di commencé gënt ay gënt yu lëndëm ngay commencé di tëju di wéet do bëgg wax ak kenn bu ñu manifester non rek jappal ni shaytané commencé na laal lolu nit ki da nga wara jox ci sa bopp. surtout ci jigeen ñi mum daf leen di def ay avortement daf leen di def ay fausse couche jigeen ñu bari daf leen di téré ëmb. ñenn jigéen ñi dañuy am crise d'épilepsie ba jigéen ñooñu pour ñu am jëkkër sax day jafe rawatina nag pour ñu am doom mais jinne moom ci gént la nit mën a sëy moom mais mënul sëy nit ñi directement boo ko géntee nag am na lu muy bàyyi ci yow bu duggee ci biiru jigéen da koy def ay feebar loolu nag mën na la fat ba tëj say trompe nga sëy sa jëkkër téeméeri at ak juróom fukk doo mën a am doom man léegi-léegi yàggul ci quatre bi jaar naa ko mhm. doon ñëw seet mais d'après lu ma lu ma defal yëpp gis naa ko fu mu nekk nii sama malade bi alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi tane fu mu nekk nii am na jàmm. waaw malade bi dafa amoon nag lu ko duggoon amoon di ko bu ko duggoon après ma ñëw si sëriñ bi loolu la loolu la ma expliqué mais fu mu nekk nii yàlla yàlla def na ci def na ci jàmm daal gis naa résultat yi daal fu mu nekk nii ñëw toog sëriñ bi daal dañ naa sëriñ bi jërëjëf rek si lu mu si li muy def li ñëpp gis nañ ko man day en tout cas bon yàgg naa ko dégg mais il m'a vraiment impressionné sur quelques une heure de temps je ne sais pas deux salaamaaleykum Serigne Lamine Bara maa ngi lay nuyu euh, di la ziare euh, di la jox sa wàccuwaay. ñu ngi lay santit bu baax baax baax wax dëgg fi yàlla affaire yi ñu nga ñu joxoon ñu ngi koy utiliser matagul mais ñu ngi commencé di ci gis tantaal bu baax baax a baax a baax ndax suñu yaram bi ñu doon diisee euh, Eh, ak gént yi ñu daan def yooyu yëpp yu si bëri wàññeeku na wax dëgg fi yàlla te garab yi matagul sax eh, donc kon dañ lay sant bu baax a baax di la wax jërëjëf. góor moom da koy da koy da koy defloo muy mballu muy foye boppam. waaye li leen koy defloo duñ ko xam. am na góor ñu bari ñoo ngi dox di dem mais à tout moment seen awra day metti te loolu jinne moo koy def seytaane moo koy def day téye sa awra am na ci góor yi nga xam te daf leen di xiir ci mooy. tant que demuñu wuti jigéen buy jaay boppam duñu nelaw. te bu ñu demee di sëy idioo ko njàkk ni sax nit la ñuy sëyal te fekk jinne lay doon jinne dafa intelligent bala ngay egg fa nga jëm moom jiitu na la fa bala mu leen di bàyyi rek ñu màggat ba ni kooku dootul am jariñ mu yàq àddinaam du am jëkkër ñenn ñi duñu am jabar ñenn ñi duñu sëy bu boobaa yow nit ki war nga xool lan moo bon am na lu bon lu la topp jinne différence am ak ak nit guddi mooy jinne daf lay dugg ànd ak yow pour conduire la en pour def la loolu bon soo bëggee jaamu yàlla mu yàq ko sooy julli mu ñëw taxaw nitu guddi nak moy dem dem bobu nak mom daf lay tital dafa am lu muy jël ci yow dem mom baxul waye nak lu am la ndax ñun ñi di fat dañuy faral di gis ñen ñi nitu guddi daf leen di attaquer bo dajante jinne julit nak limi jëk def moy kep ko la liggéey daf koy dindi kep ko la xex daf lay daf lay daf lay daf la koy daf la koy jinne amna ci dëkk bi ñi nga xamanteni am nañ alal table bi ba mu fess mën nañ ko def mallette d'argent jox la alal ju jeex man du la lor du la yàqal du yak sa digganteeg sa borom du la tegi febar te mën na la jox alal te mën na la jox xam-xam. waye jinne li gëna spécial ci ñom ci ñu leen yalla bindé jinne mom day faté jinne lepp lu mu def tay ala minute. ci mémoire am dañ koy formaté day faté bu défé lu bax faté nako bu défé lu bon faté nako yalla mo leen bindé non mission bi leen taxé ñew ci kaw suuf loolu ko faté moom dañ koy nekk rek di ci def lepp luy am suba it xam nañ ñun ay sëriñ nañu di fajj di ñaan. ba képp ki ñi xamante ni suñu borom mi ñu boole ak moom lépp lu ñu mën ci ak xam-xam ak alxuraan ak xasaaytu sëñ Tuubaa rek danañ la ci ñaanal may la ci léemaay pour yàlla dimbale la loolu sore la te képp ku mu dal buñ la ci joxee ñaan yooyu incha allah rabbi loolu dan la dan la sore dootoo ko gisati mukk sa àddina dina dañ définitivement may la ay curaay seytaane yooyu utiliser nga foo ko taal seytaane dana fa dana fa daw ndax seytaane itam dafa am yi nga xamante ni dañ koy moytu ñoom ñun xam nañ ñoom lan la ñuy moytu di ci ëpp doole nak moy alquran fu alquran karim di di yëkëtiku même boy nalaw nga wañu kon tank alquran di fa nekk yenn jinn yu bari duñ fa mëna dugg képp ku ñu soxla contactel ci contact yi di nga ñu mëna jot daañu la mëna jappalé ci ay ñaan suñu kéemtalaay kattan bismillah jër ngeen jëf alaykum wa rahmatullah bara fa ndaga njagayaam li nga wax yépp franchement deug la nit sétal na ma ba ma fay ka sama xaalis mu xolal ma ba paré dumay sétlu sax lu bare ma ne ko may naa la xaalis bi parce que li nga ma wax yëpp du dëgg donc yow li nga ma wax yëpp dafa dëggu li ma wax yëpp yëpp dafa nekk si man ku nee naa la ku jafe seetal laa wante kontaan naa torop te dara xewagul ndax gis nga nit wax bu waxee la muy wax boo ko analyser di nga xam dëgg la wala du dëgg nga xam tamit kii fu mu la teg gis naa ne itam ci sa bir wax li nga ma li nga ma seetal dang ma seetal seetu yéene wax ma waxu yéene aussi te doomu adama tam yalla mo koy orienté xeyna man ni ma xëree ci diina l'islam ni ma xëree ci jox sama bop suñu borom fonk khadim rasul di jang khaside yi di jàng alxuraan defuma dara lu top suñu borom rek itam xëy na loolu la ma yàlla dimbalee sax ba yëf yi mettiwul na mu waroon mettee yàlla moo ma orienté ci yow yàlla xam na ni billaahi wallaahi azim du may faral di dem ci sëriñ yàlla may la yow loo xam ne mayuma ko nga xam loo xam ne xamuma ko ma am yaakaar bu ma la jox ci kàttanu suñu boroom barki sëñ touba Mbàkke khadim Rasuul denk na la sama bop te dina la denk sama njabot dafa am yo xamne du mbiru nit mbiru suñu borom la jërëjëf Fall jere yal na la yàlla suturaal jërëjëf Fall jërëjëf Fall assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa jere jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp fan yi nag dafa am ben mbok bu laajte euh, recette naturelle pour walu varicocele. Varicocele, nak pour ñu ko xamul muy feebar la bi nga xam da fay tere nit am doom c'est la dilatation des veines autour du testicule Manam goor gu nek am nga ñaari testicule loolu nak muy bourse yoyu muy ñaari nen yoyu bu féké dafa am dilatation manam mu am malformation muy fi spermatozoïde bi jaar da fay fat fatt da fay dem ba laaj intervention chirurgicale Li nak c'est juste pour prévenir pour képp kee xamante war nañu wala opérer sax varicocele. mën nañu wax ni dootu ko jar ñun ñu faj yàlla wéral ñu may la loo fajee sa bopp ay remèdes gratuits yoo xam te mën nga ko utiliser sa biir kër defee ko sa biir kër yàlla defal la ci feex non seulement ay complémentaire d'aliments la day yokk ndox bi yokk spermatozoïde bi ndax ñu bëri dem nañu ba ñu leen di wax amuñu spermatozoïde zéro maanaam ñi am azospermie ñi am oligospermie ñi am nésospermie maanaam amuñu ndoxu sëyukaay. manqué na day am problème mobilité day am problème bu vitalité bu ñu sëyeeg seen soxna day niin mbatt ndox bi day woyof day niin ba ñenn ñi sax doot ñu ko am mën nañ leen may ay complémentaire d'aliments yi xam te ne dafay récupérer waat ferñeent yooyu ba ngeen am ko bu baax sëñ Lamine Bara maa ngi lay nuyu di la ziyaar yi di la jox si wàcc waay ah di la ñaanal yàlla rek nga yàgg ci nga yàgg ci àdduna lu yàgg yàgg di xetti di jaam vraiment maa dee doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante ni daal joxewuñ ci daal maanaam lu ñu xam vraiment yaa ngi xettali jaam yi yàlla na nga yàgg ci suuf waa yàlla na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla na yàlla dafa sutura àdduna ak lépp looy séntu ci sëñ Touba rek yàlla na nga ci jot ci barke Seyduna Muhammad ni ngay xettalee jaam yi yal na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg-léeg nga joxe yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di la sant bu baax jërëjëf. li ngeen ci njëkk gis nag na ngeen xam ni sump moom ñu bëri xamuñu ko woon waaye am na solo trop bokk na ci lu koy faj ñaareelu mbir ba lii bokk na ci lu koy faj muy doomi laaj laaj.

voilà kon nag laaj baa ngi nii moom laay njëkk dugal ci baraada bi persi baa ngi nii xooli nañu sunu set doomu sump ba mu set raxas ko wetin ba mu set mu dese ñu citron bi On ñaari doomu citron yi moo nekk nii ñu boole def un litre et demi ñu boole au bout de 15 minutes waaw mbokk yi salaamaaleykum waaw ma doon wax affaire ñaanu baara faal yëpp jot a yàkkamti nànk-nànk rek ci mbirum doom mbirum doom moom traitement la rek kii mën na naan tey jël ëmb kii mën na naan ba trois mois doo ko jël ëmb ça dépend ci biir nit ki nu mu tëjoo woon saa dépend ci biir mun na dem ba six mois sax ça dépend jigéen bu nekk at biiram nu mu tëjoo woon parce que man mën naa ne tëju naa ëpp na dix ans te mariage ñaari jëkkër yi ma amoon yëpp aw ma ca kenn doom bi ñu gisantee nii daal laa jël ëmb wax dëgg yàlla ci garab yi moom ci jox ni ma nan ko yi ma nan sangu di nan pour moy wax mbokki affaire bi mën na ñi mën nañ gaaw la tay mu ñi mën nañ gis te daan deux wala un mois mais de toute façon de gren dinañ gis résultat waaw parce que amna ci jigen ñoo xamni nak des fois mën nañ nan garab gi sen tromble mo fat soit ñu defoon avortement yu bari bari bari tromble yi bu fattee garab yi da ngay nan nank nank rek mu ngi raxas sa bir nank raxas da ngay xëy rek gis sa bir set day am ci ay jigen fekk dañu defoon avortement raxasuñ sen bir bu ñu raxasul bu baax biir bi day dem ba sa tromboli bu fattee doom bi du gaaw day yéex léegi bu sa tromboli setee pour nga ëmb day gaaw ñu mosoon a am doom di ëmb muy deñ di ëmb muy dem di ëmb muy deñ ñooñu mun na leen dalee noonu nga xam te ne bu ñu naanee day xaw a yéex tuuti parce que seen tromboli moom fatt fatt fatt ba il faut mu débouché wu dañuy naan garab gi nànk mu raxas seen biir ba xëy set li ngay naan koy saweeg yëpp da koy dindi nànk nànk daal ak li ngay sangoo dëgg yàlla baara faal aw ma sa fay jërëjëf merci beaucoup voilà sunu formule bi voilà voilà léegi sunu formule mu ngi ni bii moom nit ki soo ko bëggee gis ci résultat mu gaaw il faut que tu jël trois fois par jour lu tolloog casse ndékki demi verre demi verre kaasu ndékki boo ko amul à jeter yi ñu naanee café Touba boo bon ci nattee baax na comme d'habitude sucre bu mon muy suukar bi ñuy jaay ci bitig bi conseil wuñu ko kenn pour wàllu wér-gu-yaram ku bëgg suukar del utiliser suukar diabétique bu sucre dans da nga jabet mën sucre jël diabétique bu diabète jabetoo mën utiliser miel moom moo gën a baax pour suukar yi wexul ndax amul dara lu wex soo ko mënee naan noonu utile ba tey yàqu ci defaru ci suukar yàqu ko defaru ko incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem kon képp ki nga xamante ni yaa ngi am sa soxna di sëy moom pendant un an te sa soxna tën a am doom formule bii ñu la wan recette bii ñu la wan def ko nga jëfandikoo ko. nit mosu ko utiliser ci deux à trois mois te gisu ci résultat. képp kuñ ko jox rek ci kàttun yàlla dina faj azoospermie faj oligospermie faj nésospermie faj varicocèle completement bu amoon ay dilatation sirit yu dem ba lem ba fatt ba spermatozoïde bi dootu mën a jàll ba nga sentir sax ñaari nen yi tollootul bii dafa rëy bi ci des ndaw lépp dina ko équilibrer ba mu peral ko ba mu tolloo normal parce que varicocèle ñu bëri xamuñu ni boo ko amee benn bi dafay gën a ngande bi ci des loolu itim képp ki nga xamante ni yaa ngi sentir sa ñaari testicule yi tolloowul ñaari nen yi bii dafa ëpp beneen bi rek bàyyi ci xel te nga xam ne lii itam lu mën a am la te bu dee am nga varicocèle dina ko faj góor bu toog un sa soxna amul doom jëfandikoo lii ci kàttan yàlla. Sëriñ Mouhamad Lamine Bara Fall moo leen ko doon may Géejawaay du Dubalès seen cabinet univers bio kon nag defal nañ leen ko addiyee Sëriñ tubaa ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall am. def nañ fa garab yoo xam baax baax. bon sama soxna ñëwoon na ci yow sax ah ñëwoon pour affaire fibrome bi te mu nekk Thiès. garab boo xam ni daaw ñaari yoon ba garab bi alhamdulilah yàlla def na ba yàlla def na ba ba yàlla def na ci am naa sàq ndeer am naa sàq ndeer léegi. vraiment ci ku tëb ku xamul man xam naa ko yàlla may na ko ay xewul yu bëri te garab bi mu la jox garab bi mu la jox rek boo ko jëfandikoo rek du résultat. dysfonctionnement érectile définition mooy góor gi nga xamante ni dafa am jafe maanaam mi ngi am soxna waaye dafa am jafe pour sëy moom normal jafe nag pour wàllu sëy nag nekk na lu yaatu ndax boo ko seetloo lu ci njëkk dafa am faiblesse sexuelle mooy première forme bi deuxième forme bi am na impuissance sexuelle troisième forme bi am na éjaculation précoce quatrième forme bi nga xam ne jamono ji gis nañ ko muy ci wàllu sàkkara bi nga xamante ni dafa tuuti wala dafa ndaw wala mu dellu ginnaaw. asalaamaaleykum sëñ Lamine Bara maa ngi lay nuyu di la ziyaar yi di la jox sa wàccuwaay ah di la ñaanal yàlla rek nga yàgg ci nga yàgg ci àdduna lu yàgg yàgg di xetti di jaam vraiment maa dee doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante ni daal joxewuñ ci daal maanaam lu ñu xam. vraiment yaa ngi xettali jaam yi yàlla na nga yàgg ci suuf waaw yàlla na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla na yàlla dafa sutura àdduna ak àllaaxira lépp looy séntu ci sëñ Touba rek yàlla na nga ci jot ci barke Seyduna Muhammad na ngay xettalee jaam yi yàlla na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg-léeg nga joxe yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di la sant bu baax jërëjëf nit ñi ëpp ci ñi muy dal buñ ko seetloo jamono ji mooy jeunesse bi ñoom ñoo ko ëpp ndax bu jëkkoon paa yi nga daan gis mag ñi nga xamante ni am nañ ay soxna am ay njaboot def nañ seen vie ba pare ñoom ñoo daan dem ba ci diggu àddina di am problème mu boobu. médicament industriel yi dafa bëri ay anti inflammatoire bépp garab bu am anti inflammatoire wala antidépresseur loolu nit ku koy utiliser tôt ou tard dañ la indil impuissance sexuelle wala mu indi la éjaculation précoce wala mu indi ay dysfonctionnement ci sa wàllu sëy am na garab yu ndaw yu tuuti yooyu gars yi di jaay pour wàllu sey ndax yooyu itim ay aphrodisiaque la kon gars yi nañu moytu aphrodisiaque yi aphrodisiaque soo koy jël pour sëy au fur à mesure da ngay dem ba sa organisme da koy reconnaître te sa organisme su ko ba xam ko ba xàmme ko bu yàggee day dem ba dootu la jëriñ dara. salaamaaleykum wa rahmatulah waaw sëñ Ba ñoo ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. Euh, di sant suñ borom bu baax a baax waaw garab bi mu ñu jox essayé nañ ko euh, mooy buy dépanne dépannage bi waaw vraiment comme turam nu mu ko waxee dépanne na bu baax a baax macha allah ñooy sant bu baax gis nañ si suñu bopp waaw yàlla na continue te wér topp si jërëjëf waaye yow it yàlla yokk tawféex jërëjëf merci beaucoup. dama euh, déggoon ay sëñ baar ñuy wax ci moom ay jaloore. ñoo xam dañ fa demoon am ay résultats. bon pratiquement mosuma sey hôpital am naa soxna non du ma woon tere sëy mais pratiquement damay sentir ni bu may sëy daal pratiquement ak bu njëkk ba ak léegi vraiment uute na uute na am na différence ci laa ñëw dégg ñuy wax sëñ Bara ma ñëw seet si bon war na mat juste euh, deux à trois mois maa ngi sentir am vraiment amélioration wax dëgg par rapport bu njëkk ba nit ku impuissant mën na éjaculer mais dafa ñàkk kattan du durer ñaareel ba day gaaw a daanu ñetteel ba itim day am faiblesse du dëgër fay am faiblesse amul endurance bi kon nag mu ngi noonu daal bëriwul njëriñ bu baax niñ koy prévenir mooy lenn lekk légume bu bari ak lekk fruit bu bari loolu moom bokk na ci première conseil bi nga xamante ni ñoo ngi leen koy may moytu itim hamburger yeeg moytu lépp lu niin ak lépp lu gras beneen prévention bi nga xamante ni ñoo ngi ko ci wax mooy éviter de faire masturbation masturbation moom bépp nit bi nga xamante ni yaa def jàppal ni tôt ou tard dina indi dysfonctionnement érectile ci sa walu adina. traitement bi nak amnañ ci benn gamme de produits bu ñu wax rapido extra moy solution bi xamanteni c'est le meilleur beaucoup plus adéquat a ñetti pomade la yi nga xamanteni ni kenn du ko te kenn duko nan day faj lepp luy dysfonctionnement érectile ci faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce lepp luy jafé jafé ci walu doole walu ngóora walu katan ak walu sey képp ku ko am rek

77 160 93 93 77 160 93 93 Guédiawaye arrêt DoubleS Lamine barafal Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, je veux juste faire euh, ce petit témoignage euh, pour, vous parler du produit de Serine Lamine Barafal, le produit Rapido Extra. Alors, euh, moi, moi-même, j'ai connu le produit par le biais d'un ami qui m'a montré le sering J'ai acheté le produit, euh, le sering même m'a montré comment utiliser ça. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations. Déjà au niveau de la taille, parce qu'avant avant la taille de mon pénis, c'était pas du tout, du tout ça. Ça me convenait pas trop. Donc je cherchais des moyens pour, pouvoir agrandir ça. Mais grâce à ce produit, le, euh, le produit Rabido Extra de Serine, bah, la mine Barafal, j'ai vu une nette amélioration. Et pour vous dire, euh, depuis que j'utilise euh, le produit, je suis vraiment satisfait. Ma femme aussi est satisfaite parce que depuis que j'utilise le produit, je dure longtemps. Je dure longtemps. Donc moi je recommande vivement le produit